asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi bokki àddina ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant ci turu sëriñ Saalihu Mbakke suñu ma ko mayee ma tàmbalee ko ci sunu bokki njiiti diine yi nga xam ne danoo bokk ak ñoom mbir mi te waxtu wu nekk ñu di fi toggoo ay coono di ñëw di fi am ay fan te lañ fa bàyyi mooy li ñu fiy fekk si kon nag loolu cant gi mu yayoo maa ngi leen di sargal ci ni Sëriñ Tuubaa waxoon ci weeru koor di ko ndokkeel ne ko ahlan wa sahlan yow weeru koor kon yéen ñii ak seen xarkanam yu leer yi ci leerug yàlla tabaraka wa taala yéen ñi ngi leen di ndokkeel ci bayit boobu فوفي دنا ما ماي ما واخ توتي سي طريقه طريقه دن بو ووتك مروم ما سي الاسلام واخ اجي مكه جولي جروم الزكاة كور اك ان لا اله الا الله انا لو موي تولب بي دا فا يات ام بيرب خاني اي جاجي لا ام بيرب خامني دا nituk yàlla ku ne nag fa la yàlla yebal dalay jox jumtuwaay yu xeetoog loola loolu moo tudd tariq loolu it mooy parti politique ci àddina citoyen mooy jullit militant mooy tari yaakaar naa ne benn parti bu wuuteeg moroom ma ci constitution réew ma amul wala frontière réew ma wala drapeau réew ma walla im national gu réew xanaa kay kenn ku ne danga naan sama janax nii laa ko mën a toje di toj sa janax ca nanga ko xame kon nag loolu rek moo am nu sant yàlla nag bi nga xamee ne noonu diine lislaam ji nu yàlla jox bu nu ko bëggoon a soppi ngir ay tarixa du nu ko mën ndax daf koo aar lislaam mooy laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah te bu ngeen ko seetloo baat bu guddee noonu te benn tomb tomb amu ko foofu nga koy gise wax bu ma tey ñaari bar rek tomb ya bari ca su boobaa day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tomb ñëw ci ci ci ci arab daxaam ku ko doon jàng ne ataaka bi abdin wa ataaka bi sab'in ñu ne lii buñ ci sakkut pexe alxuraan ji dana yàqu waaye laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah benn tomb amu ci moo tax lislaam kenn du ko soppi kenn du ko waragi kenn du ko fabit di ko méngaleeg la nga ne yow yaa bëgg mu doxee noonu yàlla du ko nangu ndax boo tombee ci kaw ñu ne la dindil amul tomb boo daggee ak alif ñu ne la delloo ci ci la dëkk te jullit bëgg na ñàkk solo moo la koy wax kon nanu sant yàlla bu baax ci loolu ma dikk ci délégation bi nga xam ne moom la nguuru Sénégal yebal te ministre de l'intérieur jiite ko président de la république yebal ko mu wax bi yi mu wax jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon wi ni nga ma ko waxee ni laa ko koy jotalee te ci biir loolu kon ginnaaw yaa ko fi taxawal ñi nga xam ne ñoo fi nekk représenté yeneen i parti yeneen i mboolooy àddina ak corps diplomatique bi nga xam ne moo nekk fii te bàyyi ko ci réew yu bari noo ngi jaarale ci yow yow itam ndokkeel yi leen di sëriñ bi di ndokkeel na nga leen ko jot li yéen mbokki taalibe yi def ngeen li ngeen war a def sëriñ Tuubaa woote na ngeen wuy si ba tax na li yàlla digge ci ñu woo la nga wuy si da ko gis ma bëgg rek waxtu wu ngeen xewlee mboolem ñi ngeen bokkal lislaam dañuy ñëw ma bëgg nag ngeen bàyyi xel loolu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yàgg na ko wax waaye xaj ji mu mujj a def da ko caa baamu ñetti yoon mu ne lu nay ab jullit araam na ci bépp jullit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram loolu nag ku ko sàmm ci sa mbokkum jullit dara daa desetut ci loo ko mën a sàmm bu kenn tudd nit ngeen di ca teg dara ndax looloo tudd yàqu der bu kenn jekku alali moroomam wala mu man ko ko aaral mu bañ koo def tuur deret nag sëriñ Tuubaa dane waxuma la ko bokk ci man di tuur deret waaye rey yiy lore ni ki jiit ak jaan bokkul ci sama mbir sëriñ Tuubaa moomu nag dafa wax ne lu ma waay jàppi lu dul xajimu rasulillah ak ndofa la ko yóbbe te ku yaakaar ne da nga liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam lu mel ne ni ma koy liggéeyale loolu yi doom mu ne liggéeyal naa ko loo xam ne ma nga ca rawdatu ba ci madinatul munawwara te yowmal qiyaamati lañ koy xam mu ne dama liggéeyal ñi nga xam ne ñoo fi yorooni ngir bañ gërëm Cheikh Abdul Qadir Jilaani làq naa ngërëmam abul xasan azazali làq na ngërëm al cheikh abul abbas ahmad atijani làq na ngërëm رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين المتبعة لما كو فاتو من خلفاء الأربعة يب غرم ننكو ña topp ci ñoom te jege yàlla ñëpp laq naa seeni ngërëm mu teg sene ba tax nag koo xam ne neexuma la sama mbir neexu la man sa mbir neex na yàlla neex yonent bi neex nit yàlla yeb te lola doyna mo moom ministre bi wax na fi legi lu doy ban rapport bobu mi ngi nek le 25 octobre 1915 Antoine momu wax na ca lu bari ci yëm Serigne Touba dama lay deugalal rek nee booy wax ak moom doo ko mën a yey ndax loo wax mu teg ci dara école bi ngeen di romb ci ngaabu tubaab yi ñoo ne woon sëñ Tuubaa dañ ko fii def te yaay wut ña jàng te da ngay fay kay yaa koy sàkket mbaa tabax sëñ bi nangu waaye ku dem doo jàng mooy wax nee na ñu ne ko yaa ngi leen di yabal waaye du njàng sëñ Tuubaa dema nee na mu ne ko yabal leen ñu jàng laa man waaye duma leen gàccim njàng ne ko ndax yow ku la gawoon ci jàng wolof dana la neex na nga ko xool da ko ci gis nee na ñu ne nañ ci sàkk pexe ñu wut benn tubaab bu tudd Fatina Touré yebal ko nga bu mu di fa jàngale waaye amu fa lu mat weer jébbalu ci Serigne Touba ne ko damaa bëgg tudd saw tur ñu tuddee ko Ahmadou Bamba Mbakke wax na ne mas naa invité Serigne Touba Jurbel da nga ko ca gis mu ñëw ma ne ko mu ne ko man tey doyewuma la service danoo baaxoo bu nu amee xarit di ko woo ngan ma bëgg nga wax ma loo bëgg sëñ Tuba ko defaral ma kafe waaye ci sama kanam nga koy tàngale nee na fekk baayam donne na ci maamam benn cafetière boo xam ne guerre bi amoon diggante France ak Russie bañ fa demee ca lañ ko jëlee moom mu moom ko denc ko nee na keroog laa ko mës génni génne tàngalal ko ci café mu ne ma des na ma ne ko mu ne ma suukaru su bekk sama borom daf ma ko tere tel si nga may wutal mu yónni booyam ca ja marché njaareem mu wër-wër gisu ko mu ne ko kon jox ma kafe guñ suukarut gi ma naan ko sëñ Tuubaa naan kafe guñ suukarut gi ba noppi teg ca leneen ne ko kopp bii ma naanee denc ko te bu ci keneen naanati mu def mu baare wax ni dafa mel ne moom dafa xam boppam ndax ni ñu koy wormaale ni lay wormaale boppam moo tax na ngeen xam li ngeen am te dafa am lu bon si nit mooy complex ñaare ci am bu audib ak bu furwét bii da lay yëgloo sa bopp ba nga defee ne yaa gën ñëpp amul njariñ bii xeeb la sa bopp ba nga defee ne ku jóg gën loolu it bu mu nu dal màggalu Tuubaa gii nu nekk yaakaar naa ne ambassadeur u Brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamee ne yéen yéen a ngi dundal seen màggal jàng alxuraan joxe ñam tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom it ca lam doone seeni aada ña ngay def lu tudd carnaval de Rio de Janeiro te li ci kiimaanu mooy bu ñu koy def état ba day mobiliser moyens yépp te li ci gën a metti mooy dañuy dox ñoom mobile du ñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërëb ambulance yi day dox wote ndox yi day dox sécurité day dox loolu lu doy ki man la te ay fan lay doon ñu top leen ba wóor ne agal nañ ci lañu def motax sunu borom ni wala tahinu fi ibtigai qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ñeppay sonu ni ngeen di sonne yéen jullit ñi te yéen nga yaakar ci li ngeen may sonna lo xane ne ñoom yaakaaruñu ko ci sëriñ Touba mi ngeen tuddee sëriñ bu mag bu ngeen demee ca ci est asiatique am na fa pàkkub suuf bu tudd Tibet xaw a niroog Touba ci tur am fa dëkk bu ñuy màggal bu tudd Daram Salaam niroog Daaru Salaam ka ko jiite ñu di ko wax Dalai Lama lim tekk ci Chine mooy sëriñ bu mag bi bu leen xeeb seen bopp da ngeen ciy jàpp te bañ a xeeb keneen. mbirum yàlla nag dafa nanguwul bu la xasee yëkkati kenn bokkati laa bu ngeen ko seetloo bu ngeen jógee ndakaaru ñëw ba njaareem tableau bi wane fi ñuy jëm bindu Touba Mbàkke la bind waaye kenn jëmul Mbàkke Touba lañ jëm kiy joxe météo du figuré ci biir carte bi Touba te ginnaaw Touba waxuma njàmbat de damay leeral damay leeral mbirub yàlla nim daf dul nangu bu la joxee cër dalay yoral boppam ndax bu keneen jàppee mu wàcc ak moom du ngeen ci gis tuuba Linguère Fatick yooyu ngeen di gis te fii ci bu dee population ñaari million ak nangam ñoo fi ne Seydina Moussa ba ko firaw na meree def ne l'obélisque bi biñ ko tuddee woon monument yi ñu doon bind ay turam nañ ko effacé te génn ko dëkk bi waaye xam nga lu ko ci yàlla fayee suuf وأورث الله موسى ولقومه الأرض مشارق الأرض ومغاربها لولا كنت يلا فيه خاتم بيتي نيجينا تاد لين فرعون كين جيسوتو مبوكم سرين توبا دين كوي دكتور مين تالو بي دين دين نانغو ليرو لجين jëbulu gi gën a rëy ci li ñuy wax ci murit sunu borom daf ko wax ci alquran ndaxte jëbulu mooy maa ngi nii ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def ka koy jàngal rek la ni ab liir di def ndeyam ji ko jur la bàyyi ko mu defar ko loolu la waaye jaam kenn ko am mu yàlla waaye fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima loolu la alquran wax yàlla dafa giñ ne maa ngi giñ ci sama màgg man man yàlla ne yow Muhammad ak luñ la mën a wax li ñuy wax du dëgg li fekk dikkuñu ne la jébbalu nañ ci yow bàyyi nan la ak sunu bopp looloo tax Sëñ Tuubaa digle jébbal lii ñu tuddee sujjóot sujjóot doonu ko foon loxo la tudd waaye même bu tuddoon sujjóot yàlla bi mu bindee aadama def ne nañ ci sujjóot ñépp su jot ci Seydina Yuusufa dafa gént fukki biddéew ak benn di si jot ci moom weer wi ak jant bi di si jot ci moom lu gudd la waaye fa mujj dafa am ba ba bokkam yépp dajee ndeyam ak baayam mu teg leen ci kaw lal bi toog dend ak ñoom fukki doomi baayam yaag benn tàmbali di sujjóot ndeyam ak bàyyam it jóg sujjóot kon xanaa koo bokkal ñu di yonent bu kenn waroon a bañ a sujjóot ci keneen ñooñu duñ ko def ndey ak bàyyi ñoo gën a mag ci àddina dañoo jóg moo tax mu daal di mel ni ahada achara kawkaban mooy fukki doomi bàyyam ak benn wa shamsa mooy ñaari aba aba ñaari waajuram loolu yépp dafay mat di leeral ak yi nuy def fii jëkkut ci noonu li jëkk am gannaaw yonent bi ci ngir ngir mooy abi xanifata ci juróom-ñetti fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci la ko sase malik ibnu anas gannaaw juróom-ñeent fukki at ak ñett shafii gannaaw téeméeri at ak juróom fukk ibnu xanbal gannaaw téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom-benn xaddis yi ñuy dajale ibnu isxaq moo jàngal ibnu hisham siira te siira yi ñuy jàng ci sénégal yépp ibnu hisham moo ko def te kooku moom itam gannaaw yonent bi am na téeméeri at soog a feeñ bi yëf yi daataa dox dëgg dëgg dëgg mooy as siqti wal junayd siqti mooy nijaay junayd iraq la ñu nekk seen ñaari bàmmeel yi dañoo dend ñoom ñoo leeral sharia ba xam ne shariatu dafay ànd ak xaqiqatu shariatu kese mooy sakket wu amuti xer xaqiqatu mooy xeri kese yu amul sakket waaye lu bon bon xer dana taxaw moom bu amul sakket sakket nag bu amul xer darul taxaw waaye nag dañ leen di boole ñu dikk ci sëriñ Saalihu ñi nga xam ne nag ñooy bokki jullit yi bokki wëlëre yi dama leen di sant ndax nañ war a mel mel nañ ni ndax dañoo wax ne koo yilifut ku ne sa nawle la kon nawlonte lañ seq ñoom te nawloo nañu sëñ Saaliw te jàpp nañ ko waaye nun ñi mu yilif nag dafa am nun war a jëf leen fekk moom ma di leen xamal ne nit la ñuy màggal ci moom doo ko xool gis ko dëmm yi ngeen baal ma ak dëmm yi kenn du xoolu dëmm xam ne kii dëmm la daane ci biir te kenn xamul lu yi nekk ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci weer bi kenn du ne xool xam ko te ma nga ñoom ñii dem ci weer waa ki ñëw kon sëriñ Saliou xëpp nooyaay bi woyof bi yërmande ji bu ñu ko topp nañoo am fuñ ko yem fuñ ko yem ndaxte sunu borom dene wa man yataadda hudud allah fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne yit war nga nat sa bop ci mbir mu ne ndax sunu borom sax bokale bimu ko tere dafa wax ne ngi di leral li tax ma bagn ku ma te ci yeen la koy misal. ndax nangu ngeen lima len may ci soxna ak alal ak auto ngeen ñew fekk kenn diko jëfëndiko ni ngeen ko da jëfëndiko nonu ngeen ko ni la bañe mayit sama nguur gi ku ko bokkaaleeg man kenn ku ne na seet boppam na mu bëggee ku ko aar na bëggee ku ko may jàmm na bëggee ku ko bàyyeeg boppam mu xaaxtandiku ñoo xam ne daa waxut waaye bëgg na ko te kat wolof dane bukki bëtt bunt bant bënn bëtam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصر في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة ليس لأمة النبي سواك يا مكثرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي التعرف واصرف قلوب المؤمنين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر